waaye yërmaane moom amoon na ci loo xam ni moom wax dugg yàlla baye boo ma ni dootu am ndax man xam naa ni dootu am mosuma ma am dootu am daal waaw yërmaandeem ci nit ak ci gone yi la ma xamoon ci moom dootu am ci jamono ji loolu moom loolu moom xam naa ko bu wóor ndax dama cee dund ak moom lu ne waaw ndax euh, damaa mënta wax damaa mënta wax euh, lu bare bari waaye yërmandeem moom ci ci nit ak yërmandeem ci ci gone yi moom duutu am ci jamono ji nu ndax euh, kilifa gu toll ni moom ak fi mu toll woon ci àdduna te saa su ne day tàbbi ci seen biir tàmbali di xool la ñuy sol la ñuy lekk fa ñuy tëdd te it kenn kenn du duma kenn ci e, e, e, ci néewal doole wala wala jaay doole mu di ko saytul boppam nga xam ne loola moom day dafa doonoon loo xam ne moom moom da koo téyeloon boppam dénk ko kenn euh, kenn fekk ko ca daana daana def sax buy dem ci tool yi jënd biskit wala tàngal su demee toog ci barab bu ñëwee danaan wóor leen ma gone yi gën a tuuti yu ñëw ñëpp ñëpp dajaloo ñëw bu ñëwee mu di leen ko jox ci loxol boppam bu leen ko joxee ba kenn ku ne jël la mu war a jël day beru ci wet daal ni yéen ñii nag képp ku ci am soxla ci man na ma fekk fële fële ma toog day beru feneen ni ni gone yi tuuti yi ku ci am soxla ni ñëw fekk ma fee wax ma soxlaam te ku fa seen nit bul fa ñëw ku fa seen nit na toog ba koo ko jóg nga nga doog a dellu si nga xam ne gone yi tuuti yi rek mayoon na leen ci boppam lu mel noonu loo xam ni jubluwu ci woon dara nag lu dul euh, gone goo xam ni néewal nañ ko doole ci daara ji su boobaa dana ko wax te du ko ragal a wax su boobaa moo koy lijjantil boppam loolu sax ñëpp xamoon nañ ko ba bëriwul woon waaye moom daana def noonu liñ musaan a xamit ci dongab daara mooy dongab daara bu musaan di daw day dem kër ndeyam wala kër baayam waaye moom donga yi ko ci daw ci moom ci moom ngay dem ak fu mu mën di ne boo dawee ci daara ja ci sëñ bi ngay dem su ko defee mu commencé nag di la di la ganale di la Euh, di la la toggal togg yu baax. di di la defal loo xam ne da lay wër ni kii da lay ganale ak di la neexal nga xam ne loola da la fay téye ay fan fan di ko def ak di la naxtaan di xeet di seet nu mu lay naxtaane ba delloo la waaye xam nga ni liñ musaana xam ci dongab daara mooy bu dawee day dem kër ndeyam wala kër baayam moom nag ku musaana dawee ci daara yi fu mu mën di ne sëñ sëñ Saaliw la ñuy wër ba gis ko ne fi moom waaw lépp nag yërmandeem ju matale